taxawaay fii tey ci Fatick du tey la jëkk yàgg nañ fee ñëw ngir yàlla ak jëmmi le ministre Cheikh Kanté le ministre Cheikh Kanté nag day nit ku baax di ku mën a jàppale doomu aadama yi ñun secteur de la pêche ñun dey ñoo koy sant bu baax di ko gërëm ndax li mu def ci secteur de la pêche bëriwul ku ko def bi ci mujj bërki demb rek suñu marché bii ñu nekk dañ ñoo war a couper courant ñu war a fay facture boo xam ne amuñu ko ñu jaaxle fu nekk ñu daw jëm fa ma jàpp ci loxol directeur bi ni ko kenn rek moo fi xetali doomu aadama yi muy le ministre Cheikh Kanté keroog bañ demee biroom la suñu rangoon fer coupé wuñu courant bi te mareyeur yi ñu ngi liggéey te heure bu secteur bi amee problème ba ma jaaxle rek dama koy daal di woo mun ma ñëwal ci bureau bi su ma ñëwee ci bureau bi mu jël téléphone woote fa mu am problème ñu réglé problème bi kon ñun. ñun mun ñoo fay ministre Cheikh Kanté sunu yaay Fatou Faye mii nag sunu yaay Fatou Faye ku ne xam ah, ne secteur de la pêche ci mareyeur yi ci wàllu jigéen ñi ñëpp tey jii seen kàddu moom mi lañ ko jox moom tey day kenn ci le ministre Cheikh Kanté yemalewu ko dara nag. Eh. fu mu mën di toog di waxtaan. même su fa ministre nekkul. wax ja du àgg mukk. te ko ca dugal. kon sama yaay Fat Faye ñu ngi lay gërëm bu baax. ci ni nga taxawee ci secteur bi ak suñu ministre Cheikh Kanté ndax suñu ministre Cheikh Kanté ku jàppale président de la république la ndaxte Sénégal émergent bu ñu ko waxee PSE moo tax moo tax président jël PSE dénk ko ko ndax li war a dem 2035 moom mii rek moo ko mën a doxal moo tax président dénk ko ndax mooy dimbali néew ji doole yi ordonnance yi moo ci gaaw yoonu makka yi moo ci gaaw teen yi bënn yi moo ci gaaw tabax jàkka yi képp bët xongu boo duggee fii booyee makka yi man mi wax ak yow eh, ma yóbbu màkk ana militaire bi gaynde góor a ngi wóolu na la gaynde góor a ngi wóolu na la gaynde góor a ngi bi yu may ma oto seetaan Macky Sall boole ñu mu nek directeur port ma and ak mom mu dama defal teranga di defal ñima teraga, teranga di defal ay mbokam baax ci ministère bi bese kente ministère de président jox la ministre ma contane ci torop ma and ak yow ci li da ngay wat ca kaw Moustapha Ndiaye ku kaj ku ko mën booy def lu baax di wax lu baax soo dee ñu di la ko nit lel mu rafetal sa bameel ñëpp a ci yéen mag ak ndaw góor ak jigéen olof a séeréer baatolo ki buur amin yal nañu yàlla bégal ñu bégal sunu njaboot amin yal nañu fekke déwén sunu